boobu affaire Miss yeeg actualité bi dafa am te wax dëgg yàlla euh, fekke ma fu ñu ci waxee euh, Ndiaye sa gis-gis ci Miss geeg li ci xew ak euh, viol geeg yooyu ñu ci wax yëpp yow tey ana lan nga ci xalaat. ah baat bi nga mujj de mu di baatu viol. Mhm. da mbir moo xamante ne jii fu ñu ko tudd bu dee caaxaan sax war nañ koo gëstu. Mhm. fu ñu tudd baatu viol ak lu ci mën di am war nañ koo gëstu wax nañuy viol. ñi jiite comité bi génn nañu wax xale bu jigéen bi wax na. yaayam wax na. Mm-hmm. Mm-hmm. ñi ngi dégg ñu naan. yeneen i miis wax wala yeneen i miis mm-hmm. wax nañu. Euh, déjà jéego bu njëkk bi mooy. am courage u la le silence. xam nga ñi ñu lay wax naan la ay miss nangam sangam dund na lii diw def nañ ko lii tel miss dafa ëmb ab ministre ko ëmbal tel miss nangam. daawoo dégg ñu wax. bii yoon ngay dégg ñu wax. donc nañu am yaakaar ci ne. day yàgg rek waaye dëgg na feeñ. Hmm. par contre nag doon naa ci jéem a gëstu mais dama cee gis beneen affaire bu ma jaaxal te ba léegi Aba mënuma ci am réponse muy lan. xam nga li ñu wax mooy ki ñu tànn ci at mi. ne hmm. muy Miss Sénégal. Hmm. moo war a représenter Sénégal ci Miss CEDEAO. même Miss bi moo war a représenter Sénégal ci Miss Monde. loolu c'est depuis dix neuf cent euh, depuis deux mille dix neuf. boobu lañ jël. alors. Miss Sénégal 2021 Fatou Lo la. Fatou Lo waaw. mais Miss bi ñu tànn ngir mu représenter Sénégal ci Miss Monde soixante dixième édition bi. bu war a am Porto Rico. Penda Si la. mooy ki représenté woon tàmba ci Miss Sénégal. yow ci Miss bu la paase nga xoolal ci. bii bii bii bii bii. 2021 2021. c'est-à-dire Miss Monde wala Miss CEDEAO ci li ñu wax. Mhm. ci samay gëstu. mooy miss bi. miss bi ma war a dem. Mhm. boo amee empêchement. amul ku ñuy tànn ki jël miss bi. moom la moom moo war a dem. bu fekkente ne am am na empêchement. ñu xool premier dauphine premier dauphine. Mhm. boo amee empêchement. deuxième dauphine deuxième dauphine. Mhm. li ma comprendre mooy kii ñu tànn bokk sax ci podium bi. yéegul woon ci kaw sax ci podium bi du premier du deuxième du troisième du quatrième. lan moo tax yow nga mën ne. 2021 kii moo dàq Sénégal. ñu ne àdduna bi yépp dañuy daje pour indi ki dàq yow nga jëli koo xamante ne ji. kenn gisu ko bokkul sax ci kaw podium bi kii moo daax loolu am na ci soit il a deux choses jëlul deux jëlul trois jëlul deux jëlul trois yii de a moom moom moom moom moom peine de simi mhm. nee nañu nag mhm. ba tey ci gës yu ñuy def mhm. dañu organiser woon benn casting digital parce que dañ doon bañ rassemblement bi y a eu plus de cent candidats yu participé mais ay vote en ligne ba léegi ba léegi ba léegi mënumaa teg bët benn vidéo wala bu wax bu ak dëgg hmm? mënumaa teg ba benn vidéo bu koy firndeel ça fait plus de deux semaines maa ngi ci nekk beneen bi ci topp mooy mënuñu laa wax baa boog mënuñu maa wax boog bu fi mu nekk nii ak samay gëstu kër diw bokk na ci léegi ñaar moo mën a am soit ki ñu ne mooy Miss Sénégal lu tax yóbbuñ ko miis Monde <laughs> ki ñu yóbbu Miss Monde lu tax nekkul Miss Sénégal très bonne question Ndiaye dafa def sama xel mi ko ay kulóom bi ay mixé ci mafia bi nga ma dugal fi ñu toll nii. non mais man lii daf maa jaaxal sama xel mi sori. mais mais c'est-à-dire non billahi li mu def sama xel mi bari. mafia ak kulóom bi xaw ma Mexique la ma Ndiaye yóbbu xaw ma. Ndiaye posé na débat bu bu soxla réponse nag. question bu posé bu soxla réponse. Abba ah ah mooy Abba ah mooy meilleur animateur du Sénégal ñu ne dañ def concours meilleur animateur nga bàyyi fi Abba dem koo xamante ne ji sa way kenn xamu ko. yow nga yóbbu ko. wér Cheikh Diop Mbaye rek wala Moustapha Mbaye <laughs> en nga wax ni. bu dee Sénégalais yëg nañ ko tamit man man man bëriwul mais nañ ko leeral. li yëfi journaliste la de parce que yow xam hmm. nga olof di wax ku ñuy ku ñuy jiñu ndëmb. Hmm. ngay seetloo yow yeelu gone ñi ngi leen di waxal li ñu leen di waxal ñoom comité bi ñuy ñu ñu defaat lii nañ wax lu tax Fatou Lo demoon représenté Sénégal Miss Monde Porto Rico. dinañ génn am naa dinañ génn leeral li mais ñoom tamit fan yi amuñu temps de li ñu war a génn leeral ak bari. dafa bari te nag lii nag mën nga ko bàyyi ba semaine bii. te nag dinaa la benn affaire de. Ah. leneen. gis nga xale bii ñu fi tànnoon Miss 2020. waaw ñu naan dafa ñaaw ak dafa kii ak bu doon naaw sax dañ koy tànn. Hmm? Fatima. Ah, waaw Fatima Dione waaw. doon naaw sax dañ koy tànn. Ah. naa li tax après bu ñu tëjee micro yi. ñu tëj micro ah, ñu ngi koy masaw bu baax. moom ak seen waa kër. di encouragé tamit euh, waa comité bi di wax nañ ñu sàmmal suñu doom yi. waaw les filles nañ leen sàmm bu baax parce que suba ñooy nekk suñuy soxna ñooy nekk suñuy sœur ñooy nekk suñu lépp daal en tout cas mais félicité bu baax sécurité bi réew homme de tenue yi ñu ngi leen félicité bu baax koo fi dégg ci cambriolage wala loo fi dégg ci vol wala ci sàcc yàgg yàgg. dañ ci teg loxo.